wàll wa nga toll def nga liggéey ba nga war a def moo tax sunu waxtaanu tey bi niñ ko bëgg tëralee mooy boo leen gëmën a gërëmee sant leen ba pare naa jox kàddu bi Mayacine Camara maire Koungheul plénipotentiaire bi nga xam ni moo organisé réunion bi ci biir commune am moom ci boppam dina séddalee kàddu gi jëmale ko ci comité électoraux yi jëmale ko ci jeunes yi jëmale ko yi tamit ci euh, parti alliés yi xam ne dañ désigné euh, kenn mu wax ci seen tur euh, waxtaan wi nag ni ko bëggee mooy que du ŋàññante du leneen lu dul wax na mu gën a rafete na mu gën a teggine ni mu gën a baaxe am na façon wax yoo xam ne yàqu wax la te sunu toogaay tey defar wax la du yàqu wax li ma mën a wax rek mooy fii ñu jógee euh, métti woon na lool ah, métti woon na lool parce que ku dugg ci élection xam ni du fi caaxaan yombul waaye comme ni ma ko waxee sànq ku nekk li nga warloo taxaw sa taxawaay pour fexe ba Macky Sall falu premier tour ni ñu ko bëggee woon yàlla may nañu ko alhamdulilah rabbil alamin def nañ li ñu war a def ci biir commune bi def nañ li ñu war a def ci biir département bi. te it ngeen waxee léegi ku nekk def nga sa war a liggéey chauffeurs yi macha allah seen liggéey rafet na parce que yu mel ni yombul démarrer campagne ba mu jeex takk déggoo chauffeur bu xuloo déggoo chauffeur bu ñaxtu ñëpp def nañ seen liggéey nañ ko war a liggéey jeunes yi occupé terrain bi yore sécurité bi yore organisation bi moom itam mët na sëkk comité électoraux yi mëtal nañ sëkk jigéen ñi mëtal nañu sëkk donc vraiment tey mbégte rek moo fi nekk mbégte kese kese kese te loolu dañ ci am kontaan lool lool lool lool moo tax ma bëggoon euh, ñu jox kàddu gi euh, Mayacine le maire de Koungheul mu wax li mu war a wax organiser ni mu bëggee ak yéen comme dañ leen woo comme ni mu ko waxee woote jàmm la dafa nekk woote bu tumuranke tamit ci élection parce que élection en général nit ñi bu ñu ñëwee bu ñu defee élection ba pare rek le lendemain ñëpp dañuy bàbbee ko dem ñu gagné ñu bañ a gagné nañ ne loolu rafetul nit boo nekkee ñoom ñu guddeel la bëccëgal la gu subaal la ngoonal dugg ci àll bi rey seen bopp ku ci nekk mën naa am sax am na xaalis bu génn suñ suñ côté mais li ngeen génnee moo ëpp mooy bañ a xuloo bañ a xeex jàpp liggéey loolu au moins dina mérité merci lu mu rek lañ fi moo fi daje te dañu demoon benn élection bu métti te lu ko métti lépp Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar rek moo ko métti loolu mu am ñaari groupe yu am ñun yàlla dimbal lañu tey ñu mën a dajee fii ba waxtaan di wax merci te ñeneen ñu mënuñu ko kenn mënu ko ñun yàlla suturaal nañu def nañ suñu ay élection woo ñëpp ñëw ñu ne leen merci ku ko mën a def na ko def lii mooy groupe lii mooy groupe waaw te groupe bi nag duñ ko ndamoo yàlla la moo ko def waaw duñ ko ndamoo te dañu nekkoon ci dëgg moo taxit it nit ñi ñëw kii ku fi toog rek dëgg la fi ci toog du xaalis du dërëm du mbiskit du dara mu kii moom chaque jour bu ñëwee dina jéem a añ suñu kër mu jigi dama ko ay añ donc euh, merci boobu noonu comme ni nga tonton Assane waxee c'est du fond du wax ne aussi euh, yàlla na bu leen ko rëcc parce que loolu moo ci am solo waaw def ngeen sacrifice <laughs> voté génn fi quelques jours après ngeen koy rëcc loolu moom yàlla nañu ci yàlla musal lu ngeen ci gis rek lu nar a yàqu ci kanam rek du suñu coobare vraiment dëgg boobu ci lañ bëgg di dox ngeen ñu muñalante di déggoo nag parce que Koungheul bi bu ñu ko buggee defar gi faut ñu nekk benn waaw il faut ñu nekk benn gëm benn man damay wax toujours ne ay nit bu ñu àndee bokk benn objectif bu ñuy viser bu amul naa fekk seen biir waruñ tàggoo seet leen wax ji rek bu baax loolu moom su amul naa feex seen biir waruñ tàggoo ñun ñoo bokk lañu ñu mooy Koungheul rek ah, bu fekkente nag dafa am ñeneen ñoo xam ne leneen moo leen tax a jóg mënuñu ànd dañu dëgg donc ñun heureusement yàlla dimbale nañu tey jii ñu arrivé loolu tey nag euh, merci bi dañ ko bëggoon ànd ak euh, waxtaan boobu comme daje de nit aussi yombul dañu buggoon jox euh, comité électoraux yi aussi ñu wax parce que ñun man dama war a def benn rapport pour xam réunion yi de quartier yi nan la tëddee ak lan lañ ci war a mun a gën a dooleel loolu boo ngeen àndee bëgg a defar seen dëkk pour que beneen yoon bu ñu ñëwee loolu gën a mun a yomb moo tax ñu bëgg jox commune électoraux yi président yi yëpp wax jeunes yi wax parti alliés yi wax wax ñu élection yi nu mu tëddee pas ay ñaañante wala xulo wala parce que ñëpp xam nañ ne joxuñu ay moyens pour ñu ñëw moyens yi sax dañ ko détourné ñëpp dañ ko xam donc li liñ fi am yëpp aussi muñal ngeen ni ñu korkoral ko ba am yi résultat ñu am donc euh, du évaluation au vrai sens du du du parce que évaluation dafay indi ay critiques te fi amul dara lu luñ fi critiqué waaye ay conseils lañ fi joxe ak ay recommandations donc moo tax ñu bugg leen jox parole ñoom it ñu conseiller li ñuy recommander ku ci am xelaat boo xam ne aussi war nga ko mën a yokk nga yokk ko léegi nag ñu jëmmale suñu ay euh, comité électoraux yi je pense que quartier bu nekk euh, installé nañ ko ko ensuite soo mën a yi ñu yi ñu ci mën a dimbale ba ñu mën ko propulser aussi il faut que ñu ñu ñu waxtaan waaw les partis alliés je pense que jëpp sax jaruñu parce que gis nañ li ñu fi def waaw li ñu fi def leer na nañ waaw dañ doon wax parti allié parti allié dugg na fi génn na fi mais bii moom dafa leer nañ mu yóbbu ci biir dëkk bi ak ci biir euh, département bi vraiment liggéey bi rafet na trop waaw ba ci sax keroog bi ñuy dem fële waa da ngeen di woote waa RPI dañuy ñëw naan ñu diw moom Mariama moom wax naa ñëw yooyu yëpp dafa xarim AFP fekkee ma ci boole ak euh, parti ak Abrahim Agne Adi ak Papa jàpp nañ daal ñëpp jàpp nañ donc euh, waxtaan bi rek loolu la que mun nañu. du guddi du bëccëg heure bu ne su ma ko wooyee téléphone balaa maa pare liñ bëgg ci quartier bi dinañ ko am kon njaga merci may gërëm nag kenn koo xam ne vraiment dem démb dama ko admirer muy As Camara. askar commission bi mu yore woon démb nit xiifu fa nit maru fa mu ngi yore otom bi rek naan ma honorable ñan ñoo lekkul moo indi añ moo indi ndox moo indi ndekki moo indi lépp kon mention spéciale à Ass lii daal la nit mënal mbokkam ndax euh, am nañu fa yandu démb yaakaar naa ne bu dul soon suñ añ yi ñoom du ñu añ kon maa ngi gërëm ñëpp daal sant ñëpp di ñaan nag suñ ndam li yal nañu yàlla fulandil ndam li ba suñu doomi juddu yi gis ci seen bopp suñ leader yi gis ci seen bopp yal nay demee nii nag à chaque fois élection bu ñëw nay demee nii toujours di ñaan yàlla ànd bi yal na ko yàlla dëgëral yal na jëm kanam waaye yàlla bu mu yal na yokku waaye yàlla bu mu wàññeeku yàlla jërëjëf mbokk yi ñu fii ci kër euh, président mag Assane Diop nekkoon ci élection yi moment bi pare nañ tey ñu oote woon réunion d'évaluation monsieur le président comme ni nga ko wootee tey Koungheul yëpp ñëw uysi leen yow ak May Maye Sine Camara lan moo taxoon ngeen woote ndaje bu mel nii fii sa biir kër. waaw euh, effectivement bi ñu paree élection yi dama ci jokkoo ak Maye Sine ñu waxtaan yaakaar ni lu day ni élection présidentielle nga jiite comité électoral départemental moom mu jiitee comité électoral communal. ñu def liggéey bi ñu def ci programme bu yaatu bi nga xam ne def nañ ko ci biir commune bi ak département bi ak ñi ñu àndal dafa jaadu ñu dajale jigéen ñi ak jeunes yi ak i tamit kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon liggéey bi euh, te ñu nekk ci comité électoral euh, ci yi ci nekk ci quartier yi. Mm-hmm. ak euh, ñi nga xam ne ñoom lañ ko doon liggéey ci biir département bi ñu saytuwaat di ñu liggéey lan la. Euh, ni ni ko déggee fii euh, ñëpp def nañ seen rapport muy comité électro yi nga xam ne ñoo ngi ci ci ci ci euh, commune bi ci biir quartier yi. Mhm. ak tamit ñi nga xam ni moom programme bi ñu rewoon ci biir département ak jeunes yi ak jigéen ñi ñoom ñëpp ku nekk wax nga li nga xalaat. Mhm. évaluer évaluer liggéey bi naka lu demee. Mhm. xool li rëq ak li baax évaluer ko vraiment tax tey ñu mu am satisfaction. Eh, ci ni ñu tërale woon liggéey bi yàlla may nañu ci ndam ni ñu ko yaakaare woon mhm. ndaxte liggéey bi wax dëgg yàlla eh, wane na eh, ne tey jii ci commune Koungheul liñ fi yore ci ci jeunes yoo xam ne dañu organiser dañu engagé am na solo trop trop trop. gis tamit gis nañ tamit ni ñu organiser ci comité yi ba am résultat bi ñu am ndax porte à porte bi ñu doon liggéey ak animation yi ñu doon def muy jeunes yi muy jigéen ñi yëpp wane na njëriñam. kon defe naa tey jaadu woon nañu def bi évaluation. ok kon daal def ngeen seen évaluation pare mais bu ñu ñëwaat ci démb résultat yi génn démb résultat provisoire ngeen am plus de soixante dix pour cent ci département Koungheul commune bi ngeen am fi plus de soixante dix huit soixante dix côté yooyu nga bëgg ci département bi résultat yi am nan la bi nga dégg résultat yi lu mu def. waaw xam nga euh, booy dem élection euh, dafa am looy looy looy looy gis ci biir. Euh, mobilisation gis ko ci biir organisation mooy tax ngay am yaakaar ni dinaa yegg fii euh, moo taxoon ñu jàpp ni war nañoo am résultat bu kawe kawe kawe euh, suñu résultat ba tey kawe na parce que lu day ni 68 pour cent ci capital départemental bi di Koungheul nga xam ni dafa bëri étudiant dafa bëri ay jàngalekat dafa bëri ay élèves dafa bëri ay ay. Euh, fonctionnaire euh, ñoo xam ni euh, euh, en général ci milieu boobu ngay gis ñi nga xam ne dañuy faral di compte mais ñu am fa résultat yi 68 pour cent je crois que c'est pas négligeable au contraire c'est une c'est un bon score ci biir département bi itamit liggéey bi ñu def ci biir communes yi def ko ci village yi euh, loolu yëpp boo ko boolee ñu yegg 78 pour cent je crois que également c' est bon score au niveau national. Mm-hmm. bu ñu ko yeggalee au niveau régional ak Kaffrine yaakaar nañ ni dinañ bokk ci département yi jiitu ak ci régions yi jiitu ci Sénégal incha allah. duñ la duñ la teel lu bëri parce que moom mbooloo maa ngi toog moment bi nag nee na lii sax mooy nekk di wax ni mais tey attente yi lan la ngi leen lan lay Koungheul di xaar ci Macky Sall pour ci deuxième mandat bi cinq ans yi di ñëw. oui euh, je crois que li ñuy xaar ci Macky Sall nekk na xam nga ñun d'abord c'est une question économique ñun tey euh, euh, am nañu programme département programme départemental boo xam ni mi ngi toppatoo ay affaire yu koom-koom ak affaire u kiiraay muy social bi. Mm-hmm. yëpp ñu ngi ciy liggéey muy Prodesc bi ngeen faral di dégg dañuy ñu ngi xaar président Macky Sall gunge ñu ci dooleel ñu ci ba mu mun a réaliser wu comme ni ñu ko ko waxee bi ñu fi ñëwee. Mm-hmm. mooy sunu attente bu njëkk. Euh, mu appuyer ñu suñu protest boobu deuxième élément aussi ñi ngi xaar ci moom wax dëgg yàlla euh, programme yi nga xam ne mi ngi ci commune yi Koungheul mu mel ni stade bi mu mel ni euh, accélération aussi centre de formation bi mu teel a gën a yegg ak yeneen ñi ngi fi am ay problème mu ñu ko waxee sax centre culturel boo xam ne bëgg nañ ko bu am solo yooyu yëpp ñu ngi koy liggéey yaakaar ni président Macky Sall incha allah danañ ci jàppale. ok président kàddu gu mujj gi ci militants yi toog ak Koungheulois ak ñi dem vote démb du gis suñu ci vote bu APG lañ gis amul benn coow amul dara lan ngay tàgg toog nañu waaw kàddu gi mooy sant gërëm population commune Koungheul ak population département Koungheul wax dëgg yàlla euh, seen liggéey rafet na lool euh, ci élection yi lee euh, def nañ ko nekkuñ fi la di laaj xaalis nekkuñ fi di laaj lu nekkul euh, li fi nekk rek mooy euh, wax dëgg yàlla euh, gëm gëm li ñu nekk moo tax ñu doxalee ko noonu kon mënuñu du sant leen gërëm leen ci liñ ñu wóolu man ak Mayacine Camara ànd ak ñun liggéey liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañ ko ba tey jii ñu am ci kontaan te di évaluer parce que nag yombul. jóge élection toog le lendemain nga toog évaluer ko yombul. parce que ñu bari dañu daal di dem noonu rek waaye ñun demuñu. dañ toog ak suñu militant évaluer suñu liggéey wane ni ñoom kontaan nañ ak tam kontaan nañ. ok monsieur le président kon donc maintenant ñu ngi lay gërëm di la sant xam ne am na feneen fu ngeen jëm après la local yi moo ci tegu. waaw euh, après. diwo bi mooy dem ba léegi wala da ngeen ci yokk ñeneen. après présidentielle yi ñu ngi jëm ci local yi dëgg waaye xam nekk ay nit yoo xam ni dañu organiser dañu organiser euh, dañu am méthode de travail ak tam dañu am programme de travail euh, xam nañ ñi mhm. ñu ngi ci ci ci yi mais ñu ngi ci waxtaan bu baax di seet ñu koy tërale euh, dafa teel ñu wax ci wax dëgg yàlla euh, parce que kuy jëm fenn doo teel a yëgle fi nga jëm doo teel a xam wax leen ni def waaye ñun ngi waxtaan suñu biir ñi ngi seet incha allah naka la euh, tegee local yi suñu kanam ak nañ koy jàppee naka lañ ko organiser ak liñ ci bëgg yëpp naka lañ koy amee incha allah kon ñu lay gërëm di la sant ci disponibilité ci woote bi nga woote ñëw fekk si la ñun tamit ñëw nga may a après résultat yi mais dara leeragul de gis naa nga ne premier tour dégg naa affaire leeragul de. xam nga euh, euh, élection boo ci jógee euh, ki daanu moom toujours dafay dafay dana lay dana coow mooy li ma doon wax président rek. sa doom François nee na deuxième tour mënut a ñàkk ah. loolu ay waxi caaxaan la rek waxi ko daan sare la parce que bi président ñëwee fii li ma ko waxoon moo ci nekk boo leen yëkkatee ba ci kaw daane leen ci doomu taal ba ci ku joxe cinquante sept pour cent uh-huh. ah wax dëgg yàlla loolu fekkoon sax dañu wax ay cinquante pour cent virgule zéro zéro mais cinquante sept pour euh, nga xam ni yow boo boo weddi résultat yooyu da ngay jéem a defar sa jël waaye ñun xam nañ bu baax ñoom it xam nañ bu baax ni élection yi eh, président président Macky Sall ci premier tour jàll na ko ba pare. li ci des moom mi ngi xalaat nu muy liggéeyee la Sénégal ëllëg mi ngi commencé xalaat nu muy tegee nu muy defee eh, plan eh, plan Sénégal émergent deuxième phase mi ngi seet nu muy defee PUDC deuxième phase ak programme am yu rëy yooyu yëpp nga xam ne moo changé dund ni Sénégalais yi moo changé dund li jigéen ñi changé dund li xale yi defar université yi bëgg léegi fépp Sénégal mu am courant. fépp Sénégal mu am ndox fépp Sénégal mu am tali fépp loolu yëpp mi ngi ci déjà ci moom problème am mooy fii jëm mi ngi ci commencé te euh, sant yàlla bi nga xamee ni liñ mun a jaaxal nit ñi muy affaire ban xaalis la koy defee yàlla ubbil bënn nal ko euh, euh, teenu pétrole yi nal ko gaz yi mu nga xam ne yàlla ci boppam moo ci dugal loxo kon sant yàlla bu baax a baax ñun li ñuy def mooy xalaat lu ñuy liggéey ëllëg waaye waxatuñ la ci suñu gannaaw élection yi pour ñu jaar ñu ngi suñu gannaaw. jàll na ko jël jàll na bu yàgg jërë ci naf jëf nag wax dëgg yàlla euh, gërëm sant xibaaru bambuk ki nga xam ni <laughs> couvrir na euh, ni mu ko waree élection yi euh, campagne bi ak def ko tamit ci impartialité wax dëgg yàlla def li mu war a def suivre les et non les déclarations ici et là mais les faits moom nga couvrir les faits moom nga génne wax dëgg yàlla yow tamit dañ ci am yërëm euh, gërëm naa defar boo xam ne war nañ la ko defal bu baax yaa ci équipe jërëjëf monsieur le président si disponible ñu ngi lay gërëm di la sant